fi ma teg fu lu leer laa ko teg mm-hmm. fu lu leer nañ laa ko teg mm-hmm. ba ci dama ne xam nga euh, bu muy dem la nuit du vendredi tu te la Sonko comme laay je m'adresse à Sonko Ousmane Sonko directement mm-hmm. ak son protocole ñëpp la nuit du vendredi à samedi vers après au-delà de minuit une heure du matin derrière chez le président y a un jardin public moom Macky Sall foofu la ñu ci benn avant muy dem avant muy dem avant muy dem ak Sonko gisante ni dans le jardin. jardin public ci ben auto non non non ba la la président kër président boo amna ben école privée école école bu fa nek kër président Mermoz avant avant nga egg avant nga egg kër président amna ben benn école école bu fa nek mm-hmm. bo jadde ci école amna ben jardin bu fa nek mm-hmm. amna ben jardin bu fa nek mm-hmm. <laughs> au delà de minuit là la wax dé au delà une heure vers 1 heure. vers 1 heure du matin. vers 1 heure du matin dama lay won rek déjà won la ay yenn photo xaaral ma la yenn photo côté bon la régie. dama lay wan yenn photo ça c'est auto oto auto auto oto bu nekk ci côté Sonko bi. Mm-hmm. ça c'est vite bi fi corniche bi la buntu kër Macky Sall. Mm-hmm. la régie ils peuvent le prendre. Mm-hmm. puis auto bi mo nek ci kanam convoi Sonko. mooy non sécurité dem di yëg. mu ngi l' autre côté. gis nga corniche la. benen bi mooy je te montre. tu me partages ça je donne la régie. auto so oto yeneen di Sonko auto Sonko yaa ngi taxaw di ko xaar taxaw fii di ko xaar c'était vers 1h du matin. Vous mu war a dem je tu comprends. elle a elle a rencontré c'était pourquoi. c'était c'était pour discuter de la stratégie c'est Macky Sall qui était le directeur de campagne de de la coalition Sonko et Diomaye.